ndox doon lu am solo ci dundu doomu aadama day suqali gàncax gi te it di andi tawfeex waaye askan wi dëkkee ci pikin ginnaaw raay ak li ko wër ñoom waxuñu loolu. taw mësta doon mbégte ci ñoom ndax saay su asamaan si ci njàqare lañuy nekk. Musa Traoré ay atam soriwul fuk ak nyari ñaar yi mu ngi dëkke ci Pikine ginnaaw raay ci koñ bi ñuy Arlem 4 fanweeri at nag mu ngi koy dund di muñ lu metti ak ndox mile neexul ba neexul metti na naxar na te ndox bi yàgg na ci ñun wax dëgg yàlla man am naa fi 30 ans nawet bu nee nii la nekk fi di xeex sax ay doorante sax yaa yóbbu ndox sama kër yaa def sama nangam yaa bonni sama miir yaa def sama nangam coow boobu la ñu nekk démb séeri boo taxaw fii fii boo mbedd bare lépp ndox la ku ñu mën ta jàppale daal moo ñu gënal lépp ci àddina parce que métti na trop ñëpp di nelaw sa jabaraa ngi tànk sa doomaa ngi tànk ah xale yaa ngi tànk mag yaa ngi tànk bu di jóge ay koñ ak koñ di ñëw jóge ci ay ay gox gox ñëw fekk ñu métti na trop fu métti di am say su nawet dikkee ndox mi nangu seeni kër terewul ñuy dëgërlu ak seeni njaboot da ngay ngàcc même pas deux secondes mu feesaa dell ak ay ndox

nekkin wu doy waar lañu fekk soxna si ak njabootam ci bërëb bi di ko jariñ dëkkuwaay su dee sax mën nañu ko woowee noonu. bu ngoonee ni fi à partir de 17h damay damay jël sama pôle jël sama pot di tànk di sotti ba ndox mi wàññee ba dañu mun cee fanaan. da ngeen di fanaan si néeg bi nii. waaw dañ siy tëdd de yooyu dañu bëgg a rey depuis 2005 ba tey on vit sur ça parce que demoon nañ foire ba ñooñu dinañ leen dimbali defoon nañ ñu fi ay canal mais booba léegi daal suñu am nag jëndee nañ ko suuf ciment mais terewul ba tey rek ndox mi daal moom moo ngi nii daal. ndox du bàyyi yoonam te ku fa sanc yaa tooñ sa bopp loolee di gis-gisu Lassana Gagny Sakho di njiital ONAS maanaam lépp lu jëm ci wàllum assainissement. ñu ci bëri dem dëkki foofu. en général dañuy am kayit yo xamé ne dafa tegu ci yoon dem dëkk fa euh ñaari firndeel la lay jox ben gox bo xamé ni dafa wara dëkk loolu jafe-jafe la ben defe naa foog ñu saytu naka lañuy def pour que nit bala ngay dëkk fenn ñu laaj yi nga xamé ne war nañ leen laaj malheureusement ONAS bu ñuy lotir bokku ñu ci ñi laaj fi la leen ci xalaat defe naa loolu bu ñu ci bolé woon xeyna ñun nañu mën wax nit ñi kat. ah fii kat ku fi dëkk di nga am jafe-jafe boo demee Bambilor Bambilor am na ñaari xale yi fa taw bi yóbbu defe naa taw bale passé si kaw euh, ma profité di jaale euh, ñi gaañu xale yi euh, yal na yàlla tabbi àjjana gis nga boobu demoon nañ fa man ak suñu ministre pour jaale ak yëpp mais bi ñu demee xam nga lu ñu seetlu fii ndox bi di aw la ñu tabax kër yi waaw fi ndox bi di aw la ñu tabax kër yi naka la ñuy def am kayit am nañu kayit. ñi koy def mais loolu moo tax ma ne fokk ñun ñëpp ñu xoolaat suñu bopp yenn décision yi buñ koy jël ñu seet naka lañuy def pour mën faj soxla yi pour lu mel ni bañ a amati. li waral coowum ndox mi fii ci Pikine bokk na ci tali bi ñuy defar te pareegul Alioune Fall di ndaw bu soqeekoo ci gox bile di Pikine ginnaaw raay sud. diko ko naqarlu dem sax bay joxogn baramu tuuma meeru gox bi ndax ci ay mbëbëtam marché la len beug tegal ci kaw ndox mile bo xolé dëkk ci zone bo xamné day taa ndox surtout zone bi nga xamné day am ay xale am ay xale yu ndaw xale yu mag en fait bo xolé ndox bi liko waral moy fi ne en fait nekul problème bo xamné ne mëna am ndox mais problème biñu ko causer moy tali bi nga xamné ñu ko def ta parewul parce que bo xolé fimu commencé ba fi amul ndox bo xolé encore fimu yem bo dem ci ko tali bi amul ndox donc espace bi nga xam ne en fait dañ ko gas waaxi ko pour préparer ko def ko tali te ba léegi pareegul moom moo indi problème bi nii yëpp te boo xoolee en fait avant muy am tali melu woon nii donc bi ko commencé déjà dañoo indi ñaari problème tali bi parewul boo xoolee encore canal yi parewul te tey ma jox le benn exemple ñëpp ñoo ko gisandoo oto bi day ñëw day manque def ko ci kanaal bi manque def ko ci kanaal bi donc ça di dire que ne bon liggéey bi des na en fait donc li ñuy wax rek mooy mu taw ta oto bi ñëw man ko dañoo soxla gaay defar ko boobu tawee ndox mi dewal boppam ci canal bi mën am zone mu ngi ni mu ngi nefas salté am ay ndox nga bëgg andi andi beneen problème bo xam ay marché la ak ay kiosque yow déjà mënoo toppatoo ndox kon kanting encore beneen problème lay nekkaat parce que sûr que ne suivi bi am doo ko mën a def mu rax ci dolli ni moom ak it ndawi koñ bi dinañu xeex lii ndaxte kat lii raam ca ñag ba la jëm lañ actuellement def ko combat combat muy marché bi muy talibi muy ndox beek muy usitaire beek yëpp dañ ko porter muy ben combat parce que en fait jafe-jafe ma la wax dafa bari nekul talibi kasse nekul nekkul ndox mi nekul marché bi gis nga terre bi tay dañoo enclavé wu amul ben issue bu dul issue bi nga xamné mo mo moo génn mi Enma Sandax bi donc tay ñaan ñuko ko yàlla mais fi biir ginnaaw raatee urgence bu amone ñaan ñuko ko mo xam lak la mo xam sàppar war a ñëw benn issue la mën muy rond-point Enma Sandax bi amul fenen fo xamné ne mënu fa jaar fep dañ ko fermer donc loolu encore benen problème la bo xamné encore da bokk si combat yi porter porté motax man la nekul benn combat la ñu porté mais dañu jël ensemble problème yi nga xamné mom la ginnaaw raay di dundee mom la jafé jafé yi ginnaaw raay nek ñu bolé ko mën ko pot muy benn combat ñu bolé yépp yenoo noo ko nga xamné buñ koy saafara même buñ mënu mënul yépp yëpp au moins ñu saafara deux trois yo xamné dina xaw alléger la population de ginnaaw raay geneen gox fii ci ndakaaru ñoom it ndox mi di leen gàllankoor boole ci ab salte ak it ay foos yuy ball jaxasoo ak ndoxi taw bi fii mooy HLM Grand Yoff bu nekk nii heure bu tawee foos yi doxu duus yëpp di ball koñ yëpp la ñun xanaa ñun dañoo mën a wax di wax rek mais koñ yëpp la garan Yoff moom fii moom lii bari na fii dafa wër Grand Yoff koñ boo dugg nii la mel fii wàllu ndox moom chaque jour su tawee rek dañuy sonn suñu yaay dañ fiy nekk di ŋàcc dañuy ŋàcc dañu leen dimbali di ŋàcc ba sonn ñu ndox bu tawee si biir fii magasin bi ngay gis si biir léppay dugg dañuy mujjee génnee dañuy mujj bu ñu xëyee duñu liggéey dañuy génnee bagage yëpp si biti nettoyé bu mu set range waat dugalaat ñoom ñëpp maanaam askan wi di yeewoo ci diwaanu HLM Grand Yoff manko di joxoñ baaraamu tuuma njiital gox bi. maire bi gis nga liggéeyu fi dara xam nga ne lii nii baaxul sax ci environnement bi baaxul ci ci ci ci ci nit ñi waaw. canal yi tamit laa même chose xoolal li bi ñu ko fi tegee ba léegi lépp dañ koy politiquer. en fii soit dañuy wax soit politique bi ñu xool la nga ñoo xool liggéey quoi soit. état la wala mairie la ñoo dimbali parce que fii chaque jour ñu ngi soño sonn mairie boo waxee mairie ñu ne état la boo waxee fen ñu ne mairie la boo nee mairie mu ne du sama liggéey du sama domaine loolu la ñuy wax autorités yi la ñuy ñaan ñu saafaraal ñu ko ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo war ñoo moom lii seen liggéey la ñu def ko ñu def seen liggéey ñu dimbale tamit population bi askan bi sonn lañ trop parce que lii bu doon seen kër la wala mu nekkoon seen bundu kër dina saafaraw bu doon lii nii seen buntu kër lay balee nit dina saafaraw mais li mu nekkul seen kër ñoom seen yoon nekk dañ naan ñi nga à l'aise suñu famille ñi nga à l'aise rek moo tax mais nag yàlla baax na xëy na bis dina ñëw saafara dina jéem nañu nag ay pexe ngir jokkoo ak meeru Grand Yoff walla ku ko jege waaye antuwul lum ci mënti doon ndimbal na ci fekk loxol boroom. ci koñ bi ñu ngi fekk ay ndaw ñuy ngacc ak it di dindi salte yi ci canalisation yi maanaam fii ndox mi war a jaar. Abibou Ndoye di benn ci ndaw yile jàpp ni lu bon lii du lenn lu dul jëfinu askan wi. non liggéey bi vraiment wax dëgg yàlla metti na trop. ndax parce que lii xam nga ne rafetul ci gis-gis. xam nga kanaal boo xamee ne si canal canaalu ndox la. mais ñu ñëw di fi sotti mbalit di fi sotti lu bon rafet xam nga lii lu koy def nii mooy ñi dëkk ci koñ bi war nañ koo mën a xool defar ko mu rafet wax dëgg yàlla mais normalement lii buñ ko dee def di ko xool wax dëgg yàlla day doy waar mais ñun ñëpp it na naa ñoo bokk fépp danoo war a xool mooy lu rafet ñu war ko di ko def kubéeru canal yi gisoo ko beneen boo fi teg tey boo teg tey bu subaa boo xëyee gars yi ne ko te nag te yàq ko te buñu yàqeen ñu bàyyi leen noonu duñ wax daraatin mais mais gannaaw loolu xaw na doy waar tuuti de xam nga da wax ba sonn mais léeg-léeg ñiy dégg la ñii duñ la déggal mais nun naa ci wax rek lan dëkk. Michel Diarra di fëddali kàddoom ndaxte kat jàpp na ni ñoom ñi fa dëkk ñoo lor seen bopp. civilisé wu dañoo mbalité ñun ci boobu ñoo civilisé wul da ngay image kii canal yi lu ne nga fekk ay mbuus mais mbuus du pour foofu mbuus pour mbalit la da nga koy si oto mbalit sànni ko fa mais du munoo yar say butit quand même nga daja def ko si mbuus doo ko si pël mbalit moo ko a civilisé. mais imagine nga jël sa mbuus am mooy moomay butit nga jël ko dugg si canal loolu c'est doxalin moo war askan wi ngir jële fi mbënd Lassana Gagny Sakho di sàkku ngir ñu bàyyi wekki ak sàkkal pexe lii di kubéer yii di segg ndox mi ci canalisation yi ngir ndox mi mën a jàll te it mën leen a gën a yombal seen liggéey canalisation yi am na problème mais dëgg la aussi man ak yow ak ñeneen canalisation am nañ bu mag gom mag eh, bu amee boo ko bëggee faj nga fan la eh, fan la feebar bi jóge eh, bu bëri ak ragal wax dëgg day indi jafe-jafe gis nga lii ñuy def nii buñ ko continuer ak luñ ci ti dugal te suñu comportement muy man muy yow mooy keneen soppi wuñu ko afin mbënd du fi jóge am na sax lu raw mbënd tey bu tawee boo xoolee mbedd yëpp ndoxu taw mooy des mais ndoxu fos moo nekk ci mbedd mi ndoxu fos ñun nu ñuy liggéeyee dañuy def ndoxu fos fii mu aw fii ndoxu taw aw fii mais boo jëlee ndoxu sa kër nga branché ko ci ndoxu taw mais bu taw bu bari amee lan mooy indi dafay génn bu ñëpp defoon li ñu war a def mooy mu taw nga bañ a ubbi regard loo xamee ne ndoxu fos ma fay aw jafe-jafe yi di am duñ ko am. naam sax ku ci nekk am na ci wàll muy njiit yi ak it askan wi waaye coowal mbënd mi at wu jot rekk muy gën di metti te ba mu dooree ba tey safara amu ci waxaale wuñu sax koppar gu bari gi ñuy wax ni def nañu ko ci ngir jàppale askan wi état nag mu ngi ciy liggéey. waaye li jar laaj mooy ndax liggéey bu gisul njeexital bu baax jar te